yaa ngeen jëf ci seen ànd ak 7TV mbokki asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ci xibaaru maraxi li ci gën a fës bokk na ci tabaski bi nga xamante ni ki tey jii jullit yu bëri ci senegal daal dinañu koy màggal nga xamante ni mooy njiitu réew mi Bassirou yi Faye daal dinay rafetlu pas-pas bi ci askan wi àndal loolee mu gis ne daal daanaka baaxantal la ci jumaa yi li nga xamante ni ñooy imaam yi daal nañuy ñaax askan wi ngir ñu booloo doon benn ku ne respecté sa moroom teg ci li nga xamante ni mooy alalu askan wi ñu mën koo sàmm di ngeen teewlu itam chronique bés yi nga xamante ni ci loolee lay àddu di tabaski bi nga xamante ni atum ren itam dund nañ ko ci féewaloo mbokki lii moo gën a fës ne skis ñu ànd a yéen ci yaatal gi door xibaar yi wax euh, ci li ñu nemmeeku ca euh, màkk ñetti doomu Sénégal ñoo fa daldi ñàkk seen bakkan mu mel ni daal ay voyageurs privés ñoo leen yóbbu woon daal euh, ñaax na ñu nekk ca consulat bu Jidda ngir ñu def ci li ci raw li ci war rawatina ñi nga xamante ni kon ñoo ñàkk seen bakkan ñoo rob leen foofu ci bërëb bu sell bi dañuy wax tamit ci euh, cong bi ñu cong woto yu xalif général bu euh, Médina Gounass di Thierno El Hadj Amadou Ba moom nag bi mi dellusi si euh, julli ba noppi. pon nee nañu daal ki nga xamante ni moo ko sabab ab groupe la ci àndal ñoom daal dafa mel jaar boobaak léegi euh, juróom-ñetti fukki at bu ñu sukkandikoo ci immédiat mi ñu xibaar euh, mbir mi am na ñetti doomu aadama ñu ci ñàkk seen bakkan am ñu bëri ñu ci amee ay gaañu gaañu amit euh, ak ay yàqu-yàqu rawatina ay kër yoo xamante ne daan nañ ci lakk dinañ gendarmerie sax teewoon na fa ngir rek mbir li daal di delluwaat ci jàmm. ñu wax ci tabaski bi ñuy euh, màggal tey ci nekk tey ci suba njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye demoon ca grande mosquée bu Ndakaaru fa la daal jullee ba mu ca noppee nak daal na yeggee askan wi ab bataaxal rafetlu dal jàmm ji nga xamante ni moom lañu ñu dëkkee fii ci Sénégal di ñaax askan wi ngir rek ñu daal ci sax.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 dañuy des foofee ca grande mosquée bu Ndakaaru imaam Alioune Moussa Samb mi jiite jullit yi daal dinay ñaax euh, jullit yi rawatina ñi nga xamante ni ñoo teew. baax ci actualité bi nga xamante ni nii moo ñeel. lépp lu jëm ci dette fiscale entreprise de presse yi la. xam nga yoon moom yoon la rek yoon moom euh, yoon la kenn ku ci nekk euh, li nga xamante ni moom nga warloo ak yoon na nga ko def ba mu mat sëkk. li li askanu Sénégal daj. ngir ñu agsi au pouvoir mësuñu koo daj ci nit pour mu agsi au pouvoir kon ñoom lu ñu def doyut li am solo mooy ñun ci dëkk bi lañ dëkk dañoo jariñ réew mi dañoo liggéey ci réew mi duñu naata xuuna duñu duñu al toppe dañoo liggéey ba mel ni ñu mel ci réew mi. bu ñu sukkandikoo ba tey ci Mbàkke yu fay moom mii doon représentant wu xalif général des Mourides fii ci Dakar moom nag mu ngi gën a ñaax ñii di autorités yi ngir rek ñu gën a collaborer ak askan wi. la collaboration avec le gouvernement nit ñi bëgg nañ ko mais dafa am foo xam ne fii rek dafay sooxe fa muy sooxe mooy dañuy jël des groupements socio-professionnels ñii ñu tuddee leen le patronat patronat yi ay kii yu bari lañu. or boo demee Touba. wala nga dem ci sama mbokk bawol bawol yi wala mbokk kajoor kajoor yi am na ñoo xam ne tey jii boo leen ne génne leen nangami milliards ñu dem ci vallée bi ñu dagal leen ay tool ngeen bay ko ñu bay ko ñooñu dangeen ngeen di élargir wax ak ñoom. imaam Serigne mustafa Mbacke moom nag ci xutbaam ba tey daal na ñaax bu baax a baax doomi aadama yi ngir rek ñuy muñ di jéggale. Moussa Mané dañuy gën a xuus ci redressement fiscal boobu ànd ceeg Bougane Gueye Dany moom mi jiite groupe des médias nee daal du mbir mi la am jafe-jafe ndax ku nekk la la war war nga mën a wàccoog moom waaye nag li muy ŋàññ mooy jëriñ bu njëkk gi nga xamante ne saa su ne day joxoñ baaxamatu ma taskatu xibaar yi ne daal dañoo jël alalu réew mi. jël ay patron de presse ne ñoom ay sàcc lañu man dama gérer mille quatre vingt milliards cinq ñu jox ma absence de redressement ñoom waa impo ñoo ma ko jox kon du deux milliards mooy yàq suma der man buggaan bi man aw ma njariñ ci Abdoulaye Wade aw ma njariñ ci Macky Sall musuma am privilège du ci Abdoulaye Wade du ci Macky Sall kon bu ma kenn di joxoñ wala di ma sorte non déggoo la man samay compte sama alal sama compte sama alal sama bakkan sama compte sama alal sama bakkan ak sama liberté jaayee naa ko njariñu sénégalais yi donc moi je n'ai pas ce problème là jëwriñ ngi ñu dénk mbay mi ak càmm gi moom it ma nga woon ca Masaalikul dinaan fa la jullee moom moomee di Mababou Diagne daal di nay dellu si nag ci njëgu dund nga xamante ni wàññi nañ ko waaye itam daal di nay sas kilifa yi nekk foofee ci Masaalikul Jinaan ngir leen ñu dimbali leen rawatina nguur gi ci mbay mi. cri cri de changement bi nga xam ne ni population bi euh, euh, euh, wane nañ ko ci changement wu régime bi. loolu moo ñu war a may ñun ñi fit euh, euh, murit nag ku ko wax euh, fulla ak fayda ak fit moo ko moo moo moo ko moo ko moo ko caractérisé su ngeen xoolee sëñ sëñ Touba bi muy tabax Touba su amul woon fit amul woon communauté bi amul woon pas-pas tey jii Touba du nekk fi mu toll donc ñoo ngi lancé aussi un appel à tout la communauté mouride surtout les hommes d'affaires mourides venez travailler avec le gouvernement suñu gouvernement suñu dëkk bi mi ngi importer mille soixante dix milliards en denrées alimentaires contre un budget de sept mille milliards. donc maa ngi lancer un appel à la communauté mouride à la communauté Baye Fall ñu ñëw liggéey ensemble en en tout cas le ministère de l' agriculture de la souveraineté alimentaire et de l' élevage ubbi na seen ubbi na ubbi na ay lo ubbi na ay ay buntam pour ñu ñëw liggéey. lañuy daal di dem ci mosquée omarienne foofee nga xamante ni ki fi nekkoon jëwriñ bu njëkk di Amadou Ba wala jullee moom nag nee na ànd na bu baax ci li nga xamante ni imaam sey di Nourou Tall moom la waare waareem googu nag ci ñetti ponk la ko euh, tëral benn bi mooy ñu topp waajur yi jox leen cër beneen bi mooy ñu xoolaat bu baax li ñuy def ci xarala yu yi beneen bi mooy ñu xool li ñuy jëlee ci li nga xamante ni mu jëm ci tasum xibaar yi. baaraamu tànk yi ñu daal di sol seen yëre yu gën a rafet ñu nekk ay junni junni nit daal di teewe julli gi ci bile juma ay njiitu parti politique ak yeneen personnalité yu dëkk bi daal koy fekkee si balaa imaam bi di ñëw nag njàngum alxuraanul karim ak ay turi yàlla képp lañ doon dégg. allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira ñaari simili gannaaw ba imaam bi ñëwee nag ñu daal di taxawal julli. xutba bi nag mu daal di koy tënk ci ñetti poñ bi ci jiitu ne respect bi ñu war a am ci way jur yi. ku bugg sa njaboot fu ñëwee nga am njaboot ñu déggal la da ngay déggal sa waajur kamaatu diinu todaan ni nga koy ni ngay boot ni nga leblee loo leble rek moom lañ lay fel yàlla ku la ngërëmalu yàlla mu ngi nekk si ngërëmalu ay waajur meru yàlla mu ngi nekk si meru ay waajur. li ci topp moo di ni ñu jëfandikoo xarala yu yees yi. li ñuy wax net ngeen bañ a topp yooyu ndax léegi loolu moo yóbbu xelu xale yépp xale yëpp dof nañu si loolu lu ñuy gis li foofu loolu la ñuy wax da ngay génk jékki-jékki rek gis ñu ne la diw wax na lii te yaa ngi ko gisee ci internet xamuloo mooy kan. bi ci mujj moo di naka la ñu tasee xabaar yi. kon looy wax na nga xam li ngay wax soo xamul li ngay wax noppil te looy wax li su dee ayiba la même soo ko xamee am na bul ayibal kenn. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne laa laa tuuzu ibadallah bu leen lor jaamu yàlla yi bu leen wex wiññi seen sutura. E, ki fi nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection ci jongante njiitum réew yi ñu génn moom nag di xam ne nii li imam bi wax lépp incha allah dina ko jëfee itam ndi ñeneen ñi ñu daal di def naka noonu. mënatuñu dund te duñu ànd ak ni jamono di doxee. waaye it nañu xool li nga xam ne moom moo ci baax. di ko jëriñoo ndax it eh, ñu jàngal ci xam-xam lu bëree bare bare bëri. ñu ñaan yàlla nañ ko déggee yàlla na ko ñëpp déggee noonu. niñ ko tàmm gisee fii ci senegal nag tabaski ñaari yoon lañ ko daal di màggal xalif général bu famille omarienne di xamle waan ni kër diine yëpp. ñoo ngi ci waxtu gu baax gi ndaxte lii di tabaski ñetti fan lañ ko war a màggal Amar Thiam dañuy desandi ak ki fi nekkoon jëriñ gu njëkk di Amadou Ba moom nag àdduna jëmale ci pétrole bi nga xamante ne ñu ngi koy ut jamono ji ñu ci xamle mooy daal faw askan wi taaxirlu ndax la ca tukkee ci ay koppar duñ ci mën a jot tembe tembe faaw rek gën kaa néew ñu xaar ñeenti at. au-delà de l'exploitation euh, xam pétrole ak gaz mën na amal njëriñ askan bi njëriñ bu am am solo. waaye it euh, nañu jàpp nit ñi ko nit ñi jàppee ni ko nit ñi yaakaare du doon rek euh, loo xam ne tey tey lay sotti wala tey tey rek lay lépp di soppeeku kooku aussi baax na ñu di ko ñu di ko fàttali nit ñi moo tax euh, man bariwuma ci li ma ciy wax ndax am na nooy yaakaarloo nit ñi mën na demee noo xamante ni nit ñi seen yaakaar dafay tas ndax il faut mu am nu mu taxawee am ay at tuuti balaa ñuy mën a gis la nga xam ne dina ko jariñ ba ñëpp mën ko ku nekk mën ko yëg kooku processus bu gudd la. pétrole bi nga xamante ne moo feeñ ci réew Sénégal te fa tabaarakallaahu am na lu ci commencé avancé. xalifa bi nee yàlla nañu borom bi may ñu daal di ko njëriñoo suñu njaboot yi ñëw gannaaw ñoon tamit borom bi tabaaraka wa may leen ñu daal di ko jëriñoo kii di Racine Talla di maire bu Wakhinane Nimzatt moom it daal nay wax ci pétrole bi nee na Sénégal dafa war a xool yeneen réew yi nga xamante ne mbir mi jur na fa ay jiixi jaaxa bu ko defee moo baña topp yooyu les tànk nee na nag li nga xamante ne moo ca war a tukkee ci ay ah, xeetum baax baax faxu rek mu daal di jëriñ bu baax askan wi. njort comme nu ci waxee parce du réew yëpp am pétrole yu am pétrole yi nga xam ni mm. dafa am ay problème <laughs> ay Arabie Saoudite pays du Golfe ngi fii su suñ leen di tudd tey euh, vraiment seen taar euh, seen développement pétrole moo moo tax yenn pays nordiques yi aussi euh, en Europe noonu la demee yenn pays sax ci Afrique noonu la demee donc mënuñu quand fu ñu tuddee pétrole rek ñu xalaat ni luy indi ay fitna la suba dëgg dëgg la nag fépp fu pétrole indi woon ay problème war ñu seet jàngat lan moo ko indi ba ñun euh, ñu jéem ci aar suñu réew defe naa ñun ci loolu lañ nekk parce que quand même euh, pétrole bi découvrir nañ ko fii euh, ci pendant euh, mu ngi fi euh, mais ñu ngi ko doon wër bu yàgg di jeex tey nag gouvernement bi moom am chance Euh, dajeeg premier baril yi première toq-toq yi euh, te ñu rafet si njort parce que am na fi ay loi yi ñu fi tëral ne ressources yi moom euh, réew mee ko moom ci julli tabaski bi maire bu wakkaam di Abdou Aziz Gueye ñaax na waa commune ngir rek ñu jàppale ko bu baax bu ko defee ñu defara dëkkuwaay ci jamono joo xamante ni nawet gaa ngi dugg si imaam ratib bi moom it ñaax na ndaw ñi ngir rek ñu gën a delloo si seen xel. tey moom environnement laay wax parce que bu ñu gisee effort yi ñu def yëpp mais nit ñi il faut que ñu am des comportements euh, des comportements républicains nga xam ne doo ñëw jël benn sa benn salté tekk si mbedd mi man loolu lay déplorer actuellement donc il faut que ñu def attention euh, xam ne euh, dëkk bi ñun ñoo ko mën defar ñu ngi waslu ak ñu ngi jeunesse bi effectivement ñoom ñoo ñu ñoo ñu yor ñoo yor dëkk bi jeunesse bi lañu la ñu yaakaar parce que jeunesse bi c'est les bras jeunesse bi lañ yaakaar donc il faut que jeunesse am une bonne formation te euh, ñu ñu ñu muñ aussi parce que euh, nit ñi il faut ñu muñ et puis am persévérance boo yàkkamtee rek doo doo doo doo da ngay am problème donc persévérance boobu laay wax nit ñi ñu ñu gën a ñu gën a bàyyi xel euh, ku commencé benn affaire bul xalaat ne da ngay avancer rek suba mu sotti donc ça veut que xaalis boobu barkeelul donc foog xaalis bu bu barkeel il faut que euh, euh, euh, nit ñi def attention si li ñuy li ñuy gagné mu lew leen. te jeunesse bi occasion la ñu borom bi tabaraka wa jox pour ñu mën a adressé ay ay jàngat yoo xamante ne askan wi ñoo koy moom rawatina rawatina jeunesse bi. bu ñu jógee Wakaam dañuy tàllal dem Coyof fi nga xamante ni waxtaanee nañ fa lu jëm ci borom ñaari tur yi Libaas Laay muy ñaax kilifa yi ngir ñu jël ci ay matukaay yu wóor képp ko xamante ne teg nañ la ci loxo rekk yoon dal sa kaw comme ni mu waree ndax loolee diine gi da koo daan ba noppi. ci bu muy amal xutba ci julli tabaski bi imaam bu Yoff wax na ci lu bëri ci mbirum góor jigéen yi nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci moom bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne moo gën a mag. mooy feebar bi gën a bon buy dal doomu aadama mu ne yàlla rëbb na képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo jëf ja nga xamee ne nit yont yàlla yuut luut ya moom la ñu doon def muy ak ngóor jigéen nee ni yàlla rëbb na ñetti yoon la ko wax waxul ak benn population ku kat def ci population yi. yàlla sanctionné la àddina ak ci kanamu phénomène boobu nag nga xam ne mu ngi gën di law Imam Libaas Laay jàpp na ni autorité yu Sénégal am nañ ci responsabilité bu mag. nga def ci population yi yàlla sanctionné la àddina ak àllaaxira li nga xam ne mooy àttee suñu borom mu ngi ko gàll ci loosu ñi nga xamee ne ñooy àtte nit ñi di gouvernement yeeg nguur yooyu moo xam fii la ci ñun moo xam feneen la bu ñu ko jëfee gàllu na seenu loos bu ñu ko gàllu na seen loos dañ leen koy laaj. mu leen di ñaax nag ñu bañ see masla te jël ay mesures ngir sanctionner ñi nga xam ne dañ leen di tudd ci jëf yooyu. képp koo xamee ne fekk ngeen ko muy def ak ngóor jigéen maanaam di ko jëfe ah yéen autorité yi laaj leen seede te ngeen dawal ci kooku atteb suñu borom na ngeen rey ka kay def ak ku bon kañu kay def ñoom ñaar ñëpp a bon sax waaye kële dafa gën a bon. xutbakat bi nag jàpp na ni mbirum góor jigéen nekkul loo xam ni mën nañ koo nangu ci dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ni dañuy wax quatre-vingt-quinze pour cent ci askan wi ay jullit lañu. ñu génn ndakaaroo dem ca Louga foofee nga xamante ne màggal nañ bu baax a bésu tabaski bi imam bu. Euh, Juma bu Ngën Sarr moom nag dellusi na ci solos bés bi ki nga xamante ni itam mooy euh, mbay Sarr nekk opérateur économique nekk it directeur bu Sénécartour moom nag rafetlu na jéego yi nga xamante ni jëriñ ñu dénk dem bekk dikk bi ci tali bi euh, jël na ko rawatina ay dogal yoo xamante ni ci jamonoy tabaski bi lañ ko jël. comme ni koy amalee at mu jot bisub tabaski ñu koy jëmmal fii ci diwaanu Louga rawatina ci commune bu Ngën Saar ba tax nag imaam bi daa dellu solo bis bi mu nekk nag lu am solo ba tax kii di Mbaye Sarr xam-xamam màcc wàllum dem ak dikk daal dina àddu jëmale si ministre bi yor wàllum dem ak dikk bi jëwriñ ji ñu dénk wàllu transport wax naag ñun ñun transporteur bi seetlu naa bi mu waxee ñu nit am na ci ñoo xam ni dañu doon tendeefal ak euh, doxal ni seen bakkan waaye jëf jii mu mujj def ci dem dikk man da rafetlu naa moom mi nag dellu di xam ne rek ni des na yeneen yu ñu war a changé ci secteur bi transport transport la oto transport ko war a def bu répondre ci norme dangaa war permis transport en am xam xam aqu doomu aadama waaye lii ma gis ah man nag dama cee néew doole. au conducteur dañu ko aayee muy téléphone léegi nag léegi dindi nañu ko ñëpp ay téléphone solution bi mooy toog waxtaanee ko te ñu ma dëgg. bisub tabaski nekk bis am solo ñu koy amal at mu jot fii ci diwaanu Louga ak fépp ci senegal rawatina ci commune bu Ngën Saar loolee tax ba imam bi daal di nag ñaax ndaw ñi ngir ñu xoolaat jikko yi waaye tamit fonk seeni waajur. ñu egsi ci chronique bés bi Mamadou Sy Albert moom it di wax euh, ci bésu tabaski bi nee na fête bu euh, mag dellu si waat na itam ci li ñu ko amale atum ren ci féewaloo moom nag euh, wax na itam ci imaam yi nga xamante ne waara nañ lu jëm ci jàmm lu jëm ci dimbalante ak booloo mu nekk loo xamante ni li mu gis mooy lu war la fii ci Sénégal ñu teewlu ci leeral yeeg si Sy feetu tabaski jot nañu ko amal fi nga xam ne kat moo Sénégal waaye itam ci àdduna bi yëpp Sénégal yi ñoom ñi nga xam ne kat ay woy gëm lañu ñoom ñëpp dañ ko daal di ànd def ko. ba tax na imaam yi ci seen xutba daal di fàttali muy tey ëllëg li nga xam ne kat mooy am solo ci daal di rendim xar ba tax na itam rek jafe-jafe askan wi dikkaat nañ ci loolee sax moo nekk ci seen xutba bennoo bi ak wàllum solidarité ndimbal ak li nga xam mooy valeur islamique. ak tradition yi nga xam ne moo am waaye lépp daal dees koy rangoo ba tax na ci looleekat la njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay di sàkku ci askan wi ñu gën a duufal lëkkaloo bi nga xam ne moo am ngir rek askan wi gën a mën a gëm boppam daa di tingoom wàllum démocratie wàllum solidarité justice sociale ngir képp ba tax na itam ak loo xam ne moo ñuy xaar waaye gis te ne kat loolee daal am na lu muy nëbb ndax gis te ne Sénégal daana ko ruq boo dem rek am na ñoo xam ne ndóol ndóol gu metti moo leen dal ci ñoo xam ne dañuy wéy di tàllal loxo dëkk bi ñu woowee kat dëkk da la teranga fii daal di feete li nga xam ne kat mooy wàllum tabaski waaye gis na ne kat fet bu am solo naam waaye ci wàllum solidarité loole kat mënees na cee du baaraam ne gis nañ ne kat saa ne rek kur bi day gën di wàcc ci wàllum ndool dëgg-dëgg ñii di tàllal loxo ci ruq boo dem rek gis na ne daal loole lay wane kat askan wi daanaka ñu bëree bëri bu ñu añee du ñu ndekki wala bu ñu ndekkee du ñu reer waaye wàllu stabilité politique loolee rafetlu nañ ko naam waaye ñu gisee kat way dimbalante yii loole mooy illa ju dëgg ndax it wàllum cohésion sociale loolee ci bennoo bi ci lépp lu nga xam ne day nekk ci langue politique bi day tax Sénégal am jàmm nan ci daal xar suñu tànk tubéy loolu kat ci wàllum développement moo tax ñu mën cee tudd tudd goo xam ne kat day daal di nekk benn benn boo xam ne waasoo gi moom day dañ ba faw jàngeen jëf mbokk yi ci ànd bi fi li ñu yem ak yéen ci la jotaayu xibaar déwénati leen 7TV di leen ñaanal tabaski jàmm di leen jaajëfal itam ci kóolte bi ngeen àndal saa su ne leen di ñu